salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu Sen Sport 221 ans Sadio Mané l'international sénégalais mën na signé ak Real Madrid kii xibaar bi biral ne ne ñii di waa Bayern Munich daal dinañu koy tegal ñii di waa Real ngir ñu ko bëggee ñu jaay leen ko njëgu toll ci 30 jàpp 40 millions d'euros loolu nag kii di xibaar bii di Bild moo ko dal di biral kii di xibaar bii di Bild nekk foofule ca Allemagne bokk ci kayiti xibaar yi nga xam ne ñoo gën a mag foofule ñoo dal di biral xibaar bu ni mel kon ñii di waa Bayern Munich ba fii ñuy waxee ñu ngi wax waxi dégg maam jaay Sadio Mané donte ne moom sax tànnoon na ngir des foofule waaye nag dem club bu mel ne Real moom jàpp naa ne dina nekk lu gën ci Sadio Mané bu fekkente ne dem na bay génn foofu la ba ci Bayern Munich ndax ñu fàttali leen kat Real Madrid jamono bii ñuy waxee ak yéen amuñu benn attaquant de pointe benn sax amuñu ko benn ndax ki nga xam ne mooy Karim Benzema ak Mariano yëpp dem nañu. voilà jamono bii ñuy waxee ak yéen ñu ngi doon waxi waxi Harry kenn ki nga xamante ne mooy président wu Tottenham bi di laaj koppar yu baree bari ba tax ñoom ñu lànk ne duñu ko dégg nga maam teg euh, koppar yi ñu toll ci taabal ji. te xam ngeen ne Mbappé mi ñu doon topp ay at dafa prolongé woon ak ñi di waa Paris Saint-Germain jot ci moom atum ren bi du doon loo xam ne xëy na war na mën a nekk léegi nag kon ñu gis ne Sadio Mané bu fekkente na ñi di waa Real validé nañu te loolu la kii di xibaar bi biral mu ngi xam ne nii di Real maanaam euh, gàntaluñu li nga xamante ne mooy signé ki nga xam ne mooy Sadio Mané voilà man jàpp naa ne loolu bu amee dina nekk lu gën ci Sadio Mané ndax kat jamono bii ñuy waxee ak yéen xëy na li nga xamante moo des ci carrière am bareetul te am na club yi doon yoo xam ne nee nañu ñu ngi koy jéem a di nga maam yóotu fële ci Arabie Saoudite bu mënee des Europe rawatina bu mën a joué ci yu mag yi di compétir ci li nga xam ne mooy compétition bu mel ni ay Ligue des Champions ya ci aju voilà su boobaa dina nekk loo xam ne lu am solo lay doon kon mbir moomu dinay wéy di ko topp Sadio Mané ak Real Madrid ñeeg gi nak ñu ngi koy xayma ñu ne ci ab euh, boru 30 japp 40 millions d'euros loolu lañuy di wa Bayern di laaj Real Madrid bu dé bëgg nañu ko ñu dal di leen koy jaay dinañ ci delu ci wat ki nga xam ne nag mooy Mikayil Ngor Fay Michael Ngor Fay bi la dafa dal di signé ak Barcelone wala dina signé manam accord total la fofu mom leer na ñi nga xamant ñu di wa Barcelone dañuy signé ki di Michael Ngor Fay njëg nag ne na ñu ngi koy xayma ci 5 millions d'euros moom ki nga xamante ne mooy Michael Ngor Faye nekk euh, koo xamante ni 19 ans képp la am maanaam xale la kii xibaar ñu ngi biral na ñu ngi koy signé ci club bi nga xamante ne moom la ñuy wax voilà Kostu Sidja Kostu Sidja nekk foofu nga xamante ni mooy ca Croatie foofu lay footballé moom gone gile am na ay club yoo xam ne doon nañu ko topp foofu la ci France newoon nañ ci ay jamono jaba sax ñi nga xam ne ne fan yii nii ñu dëkk fan yii nii ñu génn nii club bu mel ni Borussia Dortmund ak ñi di waa Chelsea football club yëpp songoon nañu ko ngir bëgg ko signé ci kaw loolu ci la Barça ñu profité gis ne gone gi ku am avenir la te it am na xarañteef bu baax a baax ñu daldi di sogu kon ay mbiram dal tek li nga xamantene moy 5 millions d'euros ci table ji kon mom dina dal di dem signé ji lolu ki nga xamantene moy Fabrizio Romano mo ci daldi ñew mom nek journaliste SK Sport nek ab italien nek ko xamantene xam xamam dafa match lool ci walum transfert mo daldi ñew ci lool mom limu xamle moy mbir mi euh amna accord total li dess rek moy mo dal di signer li nga xamantene moy contrat bobu lolou yakarna ni xibar bu am solo voilà ñu ngi ñaanal nak ñu ngi koy ñaanal ndax ku soxla ñaan la amna xarañte bu baax baax waaye ñu ko ñaanal mu baña jaar ci tànku ki nga xamanteni mom lañuy wax Jawandu jañ Moussa Wagué ak ki nga xamne moy mooy Moussa Diaye ndax ñom ñet ñep bu ñuy xol jaar nañu fofu la ci Barcelone ci équipe euh, jeune bi waye amuñu chance ngir wara mëna nga bam intégré équipe première bi wala bok am fa place ñu ngi koy ñaanal mom chance bobu gaay mu am ko ndax kat di si joué ci équipe bu melni Barcelone di jouer ci li nga xam ne mooy équipe première loolu jàpp naa ne bu dee am na lu neex sénégalais lay doon ndax Barça dafa bokk ci équipe yi nga xam ne dañu leen ràññee lool ci Europe te Sénégal yi nga xam ne jot nañu fa jaar amuñu chance moom ñoo ngi koy ñaanal moom mii nga xamante ne gone la am na avenir ngir chance boobu mu dal di koy am moom Mikayil Ngor fay